11 novembre 1902 11 novembre 1902 11 novembre 1902. ba nga demee am nañu naa doo dellusi. Sëñ Tuubaa rek a dem. kenn mës la dem dellusi. Sëñ Tuubaa képp dellusi tamit. 11 novembre ay jooje waay. mu ëpp lépp ñëpp moom. ku dul Sëñ Tuubaa génnoo sa bunt kër. yaa dem ba dellusi andi ndam yi doy nga ñëw santati nan la jërëjëf musal nga ñëw. jërëjëf Sëriñ Tuubaa jërëjëf 11 novembre 1902 bismillahi yalmulu bila manaay wala intihaay bismillahi yalmulu ولا انتهاء حمدا لربي خير مربي قدرا ما قلبي بالاقتداء لا شكر بلا كفر wawa nasire jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba. jërëjëf borom Touba. jërëjëf borom Touba. jërëjëf borom Touba. jërëjëf borom Touba. jërëjëf borom Touba. jërëjëf borom Touba. jërëjëf borom Touba. jërëjëf borom Touba. jërëjëf borom Touba. jërëjëf borom Touba. jërëjëf borom Touba. jërëjëf borom Touba. jërëjëf borom Touba. jërëjëf borom Touba. jërëjëf borom Touba. jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba بالخير يا ذا الوحود يا ذا الوجود كل بجود بلا انتهاء صفي وصولي بلا خفولي لي جد بزولي جنب الرداء هبل تلاوة soo kan ci ñëpp jërëjëf jërëjëf soo jërëjëf jërëjëf jërëjëf soo kan ci ñëpp jàmm ci boulevard de la Liberté ex ak ak la lii baa ngi nii bis bi ci siraatal mustaqim lañ ko teg ci nde leeru sëriñ Tuubaa yi si yëm laat tàmbalee ko si yëm xaadir tàmbalee ko si ci soxna may mu doon mbàkk bi dafa xaadim ci siraatal mustaqim ba ci sëriñ sëriñ Tuubaa yi leeru sëriñ Tuubaa yi Cheikh Mountakha de dama ne na fi yàgg tamit barke borom Tuubaa Seex Muntaxa yokku na yàlla na yàgg ànd ak moom barke Seexal Xaadim maa ngi sant maa ngi gërëm sant ñëpp